donc c'est pour te dire que du baromètre boo xam ne ne mun nga wax ne ne wéy lii kat mën nga ci sukkandiku mobilisation bi Mbuur Tiwaawoon ñëpp a booloo mhm. sax au niveau national am na ñoo xam ne fi fii nañ Dakar dem fofu fekk di len fa lan mo xew dama japp né ben président la bo xamné ne ne dañoo bëgg dalal xelam baadu oui ci la fi xewoon mars ba léegi ak li ci toppaat bëgg na dalal xelam ci ne woy sénégalais yi de ñi ngi ànd ak man ba léegi caution morale boobu mais est-ce que mobilisation égale caution morale est-ce que mobilisation égale yow nañ àndal waaw bu waa Thiès àndeek mburoog soow mii dinañ ñàkk local nga foofu le local waaye le wees na léegi lii ñëw kay la ñuy wax. mais l'histoire s'est répétée. Mm, législative ñëw. Ah, Idrissa Seck a régressé. cela veut dire Idi a été conjugué au passé par même les tiers soignants ci seen mm-hmm. parce que pourquoi Nek nga mën wax njital opposition nga bàyyi ko fa dem ànd ak Macky Sall mais lolu bokku na ci lu ray Idrissa Seck.

dañuy gagner lolu ken waxatu ko légui nak man japp naa ne la fa xew mom moy reconquête mom mo fa nek Macky veut reconquérir le cœur des Thiessois dina ko arrivé du ko arrivé l'histoire nous le dira mais benen bi mo di ne fa lay. beneen bi mo di sur le plan bi nga xam tane ni ñu ngi koy wax né tournée économique la tournée politique la mais économiquement parlant qu'est-ce que Thiès a gagné ci ñew Macky Sall ci premier conseil des ministres. Simon énumère na fi lu mais ça c'est des infrastructures scolaires éducatives laa ko mën a Les centres de formation Nous na disons, tuddati quand sapeur pompier c'est normal a une école formation de sapeur pompier c'est normal pour des questions d'équité territoriale pour des questions il xam il faut ñu former la bu ko les parce que nekk na zone tampon entre Dakar ak une région. yeneen régions yi tant mieux mm-hmm. mais mieux de faire, ça va mais loolu ñoom teguñu fenn nga créer terre à na la tuddati mille milliards alors que loolu mënoon na la dimbali nga mën a réhabiliter le chemin de fer bu lay permettre ngay jóge Dakar di transiter ak lépp li nga xam te ne nii de fer mi ngi ko fi doon jëriñ wàññi na accident yóbbu na ay bagages économique par parlant dafa am njëriñ beneen bi fa lay terminer ICS mais Sénégal ko moom ak